te ñenn ñi ñenn ñi mer donc moi je trouve que dafa waroon expédier uniquement les affaires courantes tu vois. Euh, yow nga toog ba heure bu la neex nga fàtte sax nommé le président le premier président la cour suprême nga toog ba mu neex la léegi nga ne bon léegi neex na ma c'est comme l'histoire de Sénat Sénat yàgg nañu toog ne ne monsieur Ndir dafa war a jógee mais boo mu ko arrangé mu def ko ñi ko doon bañ sax boo ci continuer de sa wax da nga ciy ñaaw ah, a ko waxoon def naa ko mais heure bu et ça c'est ce qui fait que de la malgouvernance moo am dans ce pays et loolu surtout réforme boobu dafa am solo révision de compte bonne gouvernance justice pour tous et limitation de la détention des gens de façon arbitraire euh, de façon illimitée yooyu yëpp son des choses qui vont travailler y a aussi l'emploi parce que bu ñu ko réussir du baax parce que dañoo gis fii si réew mi tubaab bi di daw di dugg si fii du dëgg hmm. suñu doom yi di dal si géej gi di génn hmm. dañu nga am pétrole am gaz am diamant parce que léegi leer na. Mhm. le communiqué du ministre des mines qui est le min le le le le le un membre du gouvernement de l'État du Sénégal moo génne communiqué ne lan Moussa Diop lu mu daan wax dëgg la il existe un permis d'exploitation de diamant au Sénégal. waxul passé composé wala imparfait dafa ne le présent la mm. wax. au numéro 2 de son article. Mm-hmm. alors donc Oumar Sarr bés boobu xaw ma lu mu jëloon mais bés boobu leer na quoi. que l' état du Sénégal reconnaît. yi. te man j'avais demandé à aller en justice. parce que man loolu laa gëm. am na sax ku génne communiqué dinaan Moussa Diop da doon ñaan njekk c' est Madiambal. mais ba ma génnee ba léegi pourquoi du tontu pourquoi il a une grosse langue ah. wax sama ginnaaw yomb na mais gaynde gi toog sa wet sa beneen affaire la. Mm-hmm. voilà donc c'est pas joli. donc ci passeport passeport diplomatique yi. c'est dans c'est normal des choses. c'est tout à fait normal. Mm-hmm. si on veut faire la rupture. un passeport diplomatique c'est lié à la fonction. donc ça mission. tout ça entre dans le cadre de la rupture de cette rupture de la rupture parce que bu ñu defoon leneen ngeen wax ñu leneen franchement man xam naa leen de xam naa de xam ne ñun ñëpp rupture et les actes suivent. mooy lan mission bu ñu la joxoon fonction bi ñu la joxoon jeex na passeport buy durer trois ans yow nga jël ko euh, un an après wala six mois tu n'es plus nga jël ko di lambar lambar si monde bi à Dubaï partout di woon diplomate tu n'es pas diplomate. man j'avais le passeport diplomatique à dem dikk parce que dama doon voyager di xool di commander ay pièces di commander ay oto ni ñu ko monté bu tollee bi feneen moteur bi ni ñu ko monté ànd ak le directeur technique ñëpp ñu dem ba mu paree foofu laa pare ci passeport diplomatique. Mm-hmm. mais pourquoi démb ma dégg coow li bëri ñu naa non c'est pas élégant nekkuñu ci élégance dépasse nañu foofu fekkee élégance la ñu sommes beaucoup plus civilisés que parce que bu wax jotee noppi sikk la woon ñun dañoo wax ni non à ceci ñu nekk fii ak seen arrogance na bakkan rot na deret tuuru daañu fi def deuxième quinquennat troisième mandat indi fi coow. mais bu ko leen président Macky Sall toppoon te moom sax malgré lui la arrêté. parce que à sept mois la bàyyi yëf yoo xam ni allait conduire le Sénégal dans des situations ne donc par conséquent par mission wala cette fonction bu jeexee ay la yowin. on euh, coupe ce ce passeport diplomatique. da nga boo bëggee génn demal jëli visa. fekk am nga looy dox à l'étranger pays boobu ne la ñëwal nga dem jëli visa il est où problème mais nga ñëw ne naa yore passeport diplomatique y a un DG boo xam ne il a cinq passeports diplomatiques. ci Sénégal gi fii. ah oui. ah oui gis man boobu ñu may fonto ba ma génnee yenn kii dama ne boo waxee de. Ah, la personne may ma ma c'est excessivement grave. si on sait que le c'est président de la République attention. moom mooy moom mooy délivrer <laughs> ce qu'on appelle. le passeport diplomatique. loolu comme tamit problème la de loo xam ne mënu ma ko prouver. non non. dama ne cinq passeport diplomate moom jabaram ak ñetti doomam ki mujj am passeport amuloon un an et demi ba muy am passeport. Mhm. ban ministre moo ko defar sur instruction de qui. Mhm. loolu moo doon Sénégal. soo nekk ministre mais li ma jaaxal le chef de l'état moom mooy délivrer kii bi kon gars yi fan la ñuy jaar ñoom ñëpp ñu ngi ci biir loolu mooy dëgg. man président Macky Sall lu ma buggoon am ci moom am ko. parce que sama grand la mais également quelque part woon na ma parce que ku koy wax non la la bëgg. Ah. i toog mu ne ma kii ma ne ko président du ma ko def mu ne yow yaa fi dugg dinaan non mais fii ku fi dugg ne wii man ko di nga déggaat non mu ne bu ma waxati grand sax ma ne ko monsieur le président la rek jëlal c'est pour vous dire uh-huh. il faut être du côté du peuple et de la de de la nation mmh. mais topp si eh, man su ma soxla sama bopp mmh. Fatima rey leen ko am na lu mu def loolu da nga koy dégg mmh. et ça comprend rey leen ko am na lu mu wax wa rey leen ko am lu mu xalaat lu ça ne peut pas ça ne dugg sama bopp bi di naan kii non kenn du xam lu nekk sama da jël sama riiti fa la rek di naan way euh, Bourguédé mu defal lay nomination mais j'ai préféré dire la vérité et de rendre loo xam ne voilà. nooy participer ci projet bi ndax danga bëgg dellu Dakar dem dikk d'autant plus que jamono ji ay eh jafe-jafe yu euh, moom moo nekk euh, ci société boobu nga xamante ne ne yoroon nga ko pendant ay at euh, tey itam amoon na loo xamante ne defoon nga ko ci. waaw ñeen bu maa ngi dégg Sénégalais yi di wax ça parle parce que chacun a la liberté d'expression de nekk aussi mm. mais man du dem dikk rek transport laa mën a def c'est vrai que je n'ai aucun diplôme en par sama vision parce que vision tamit yàlla moo koy def ci nit. Mhm. ma def ci li ma ciy def. c'est imparfait c'est parfait œuvre humaine la li ma def foofu yëpp mënuñu wax ne tout est bon tout est ok tout est nickel tout est chrome mais def naa fa li mu fa war a def ak lim mu fa mën a def. li ma fa génne du mauvaise gestion du détournement d'argent mais parce que de suis contre troisième raka parce que julli tabaski ñaari raka la. si imaam bu jógee màkk sax bëgg ma jiite si ñett subhanallah lay dégg te defe naa ne sama grand frère Macky Sall dégg na subhanallah boo xam ne tey bu démb doon tey il m'aurait écouté parce que ñi mu toppoon yëpp ils ont pris le mur et puis tas nañu seen coalition en plus te moo ko def il a une lourde responsabilité mais tey ñoom buun fa jun Abdoulaye Dione maa ngi koy jaale vraiment toute sa famille parce que c'est quelqu'un qui m'adorait je le dis buun mu nekkee PM fàtte sax boo ñu ma dàqee un 16 heures ñu naan dàq ne ko moom moom mooy woo téléphone na fake news parce que am ñoo xam ne ñu noo bëggoon dàqalu parce que man dañu maa dàq depuis longtemps bref j'ai été vraiment du côté de ñi nga xam ne mission bu ñu ma joxoon j'ai fait ce que j'ai pu mais man du dem dikk rek laa mën a liggéey je suis juriste et puis bu fekkee ne ku dem ko xam ne amul benn diplôme transport ñëw def loolu kay. <laughs> war na ko alors très bien très bien <laughs> alors il y a eu a eu des changements notables. au niveau des des des ministères. Mhm. gis nañu yu ci bari bari dañ ko dañ ko regrouper. Ah certainement par souci de rationalisation. tout à fait euh, agriculture élevage euh, jeunesse sport culture. culture. Euh, transport terrestre aérien est-ce que euh, démarche boobu efficace na. si on sait que ni secteur bu ci nekk. sur le principe évidemment am na am na urgence. xam nga. ne pensez pas que le ministre moom moo xam lépp mooy def lépp mooy agir tout seul mooy gagner tout seul ou bien se trompe tout seul non mhm. il a une équipe autour de lui man sama programme c'était vingt ministres bi ma bi ma tegaloon Sénégalais yi c' est presque la même chose moo tax ñu ànd c' est pas une histoire de non xaaruma tamit ba ñi ñi pare yëpp pare ma ñëw taxaw na ñii ñoo xam na je suis bloqué doublement privation de liberté je suis bloqué xam na ni ñii ñoo fi toog ba léegi ma ne nañu ndokke benn bu fekkee bëgg nañu Sénégal ñu nekk benn. mais ku nekk jóg na ne man maay nekk président non yàlla moo koy def ñu ànd donc sur ce programme là de regroupement. rationalisation des dépenses et de regroupement ñi nga xam ne ñoo mën naan xam maa ngi lay wax léegi